Aïcha comme ni ñu leen ko waxee woon rek ñu ngi fii ci kër ki nga xamante ni mooy Serigne Fallou Dieng ak Serigne Moustahim Mbacké waaye tamit indi gis teranga bi nga xamante ni moom la waal Seck indi pour fësal taalibeem saa su ne noonu rek lañ koy defee nee naa leen dañuy ànd ak euh, waa El Vision Média di jox lépp loo xamante ni am na fii ci Touba waaye teranga bi nag moom ëpp naa bañ a wane ndax day fas yéene jàkkaarloog Wally Seck rek waxtaan ak moom mais bala ñuy waxtaan dañuy ànd ak sëñ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 yéen télévision bi may jël maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ñi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ fàllu Dieng turu sëriñ Moustaxin moom suñu Abdou Khadim Baara di sët sëriñ Baara nuyoo bi gën a matale nuyoo jullit ak mbokkum jullit te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaye li ñu fi dajale nag weesuwul lu dul Wally Seck mii nga xam ne day kenn ci sëriñ Fallou te seen kóllëre li may faral di wax ni li ko boole mooy sëriñ Touba Cheikhul Khadim te dañuy wax ni kóllëre gu serigne Touba fas du ko ba aljana te wax deug yalla bu déplacer wo jugé Dakar ñew ba fi Touba di andi ay adiyam ci magal gi mënu ñu luddul bayyi suñu yitte ñew and ak mom ci lepp and ci ak mom ba xolam sedd ndax yonente bi sallallahu alaihi wasallam sallam na gan dañ koy téru teral ko kon lool rek lañ man li ñuy tambalé rek moy di sédé ay jikko ci walimi kenn la ko xamni day wër na ma ni xolam bi serigne Touba ci fess dell ba leen xajut ji yàlla xam na ni bu ko mënoon waxuma la mbooleem koo xam ni sëñ tubaay sama am waaye ko mbooleem kuy wuyee murit rek sa bundu kër dana fa yewu nag loolu amut lu ma ciy werante te loolu li koy firndeel mooy jikkoom képp ku ko jige xam nga ci moom tab goo xam ni lu mu yor jox ko jaamu yàlla yi képp ku ko jige xam nga ci moom ay yar ak yi teggin ñu mat sëkk ni ma ko waxee woon ci suba Cheikh Mouhamadul faadal daa am ku ñëw ci moom ni ko Mbàkke day jaamu yàlla munta ñàkk sëñ Fallou ni ko ci ku bëgg àjjana mu ne ko liggéey day mënta ñàkk sëñ Fallou ne ko ci ku bëgg tiraangay àdduna mu ne ko xam-xam day mënta ñàkk sëñ Fallou ne ko ci ku bëgg a deñ ak réer bi mu noppee sëñ Fallou ne ko waaye doyul de naar bi jaaxle lool ni ko Mbàkke ana luy doy sëñ Fallou ni ko mooy yar ki teggin te mooy ak taalu bi ndax boo jàmmoon yàlla bay dem arasaka ñëw te àndut ak yar ak teggin dees na la toroxal boo jàngoon ba wannu lef te àndut ak yar ak teggin dees na la toroxal boo liggéeyoon ba ëpp ñëpp am-am te àndut ak ay yar ak teggin def ndees na la toroxal waaye yar ak teggin la kenn mënut a boole nit di ko toroxal te Wally Seck mii moom lañ xam ci moom. yar ak teggin ñu ma sëkk boo ko tekkee muy tudd muy tudd ak taalibe bi yàlla xam na ne loolu rek lañu ñu ànd ak moom te alxuraan loolu la ñu sant mooy hal jazaa'ul ihsaan illal ihsaan lu rafet moom lu rafet rek koy fay. ñun amuñu lu dul sëriñ bi ne ko suñu Abdou Lahad waxoon képp koo xam ni bëgg nga sëriñ Touba dañ laa jàppe ni suñu jëmm bopp yi ndax sëriñ ñu defal lépp ñi ngi jégalu ci kaddu yi lu ci xeebu wala mu matadi na ngeen xam sama xeeboo ak sama matadi képp la lépp lu ci jub nag ngeen xam ne ndimbalul yàlla sunu borom la ak baaxub sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim mi nu yàlla booleel alaykum wa rahmatullah barki borom Tuubaa barki Cheikh Ibrahima Fall waaleykum salaam wa rahmatullah ay ca ba tey ngi fii de di waxtu fa seen waxtaan ak waale fa seen waxtaan ak euh, bu leen neexoon réew sëñ sama maam doy na lépp ci àdduna ku mu bokkul sa maam ku mu bokkalul jumaay tubaa jii moo la gën barki sëriñ Saliou Mbacké waaye li nga wax wax ko ci taalibe wax ko ci yaru wax ko ci teey wax ko ci dal bu la neexoon dangay bonde ndax ci moment de bondé la ñu ne segam taalibe bonde di sant sëriñ Touba yéen sët yi ngeen di tekk dee leen cëppi cëppi di bondé seen maama waral lépp joxal yi ayca gis ngeen li nga xamante ne moom la sëriñ boobu wax waa Seck dañoo ñu gis tey ngeen ni fi eh, benn eh, li ne mooy teraanga jëmale ko ci li nga xamante ni mooy suñu màgg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ndax sëñ Tuubaa dafa doon wax naan boo may sant da ngeen ma santalee alxuraan ak eh, xasaayit ak ay bernde yow ma gis nga indi fi lu mel ni ay nag ñu fas yéene berndeel taalibe yi nga xamante ni ñoo fi ñëw li Wally la ma war a nga def loolu waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen ziare ci màggal gi di ñaan màggalu jàmm waaw ñi nga xamante ni ñu ngi jógee Ndakaaru di ñëw ak partout dans le monde entier yalla nañ yalla indi seenu jamm buñ fi ñëw fekk fi jamm ñu magal ci jamm ñibi ci jamm tàmbali ko ci bismillah jeexal ko ci alhamdullilah ma ngi lay ya yaboy Zeyda ñu ngi lay ziar bu baax ngi ziar sama sangi sama kilifa yi sama xarit yi nga xamanteni serigne bamb rek moñu bolé donc liko waral nak moy war lañu def wa ñun amuñu dara mënuñu dara tay suma génnee ba mu demee nii gannaaw yàlla ak yonent bi ndimbalu Sëriñ Bamba waaw moo ñu def ni ñu mel donc suy amee dañuy ñëw rek def lu ñu war te loolu sëñ Bambay fay sëñ Bambay fay waaw li gis ni foo toll yaa ngi fësal sa baay Fall gëm-gëm ci euh, tarixa suñu maam Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul fu ñu toll yaa ngi fësal loolu si si ci euh, nga xamante ni mooy sëddi ci sëddi nga koy fësalee mu mel ne dañoo gis nga ànd ak sëñ Fallou Dieng ak sëñ Moustahim Mbacke ban relation ngeen am ba tax heure boo jógee rek euh, ñëw si ñoom waaw xam nga askanu sëñ Bamba du ndaw du ndaw mukk waaw yàlla dafa def ci saayir ma tolloog ñoom génération waaye ñoo ma mën ñoo ma sut ñoo ma gën ñoo ma mag yàlla dafa def ci saayir ma tolloog ñoom génération waaye ñoo ma sut ñoo ma mën ñoo ma gën ñoo ma mag donc bés bii ñun lañu am waaw ñun amuñu dara lu dul màggal gi waaw bu ñu joxee ba jeel it dañuy bég waaw sëñ Tuubaa rek ngay gis ku ñëw këram ak fu mu mënti feete nag kër sëñ Tuubaa goo dugg nit day joxe ba jeel ba joxe ba jeel ba jeexal teg ci jooy bi kenn du mer waaw kon nag sant sant bu baax sëñ Thioye Faye sëñ Thioye Faye man sama relation ñoom li ma la wax rek eh, sëñ Thioye boole te sëñ Thioye Faye waaw dafa nangu ndogal li dafa nangu ne moom alalu Serigne Touba la moo waral lii xew tey nii xew ndax sëriñ Touba lu ko waay di defal day fekk moom mu bëgg nga defal ko ko ndax nit yoon na ay milliards te mu sëñ te mu sëñ Tuubaa mun see lekk ñaar téeméer kon moom su ñëwee def teraanga ji jënd ay nagam bi ñu wàccee léegi saag la teg suuf pël yi nekk suuf yëpp pépp pël mu taxaw jënd ay nagu 400000 nagu téye 500000 nagu 350000 fas yéene koo yóbbu kër mbaake Mbàkke yi moom na dafa nangu ndogal dafa nangu ne Serigne Touba moom te xam na loolu xam na ne moom alalu Serigne Touba la te nag. billaahi wallaahi taalaahi ku koy xaadi nga xaadi. da pareeguñu ñu dañoo gis ni yow don yi joxe woo fii kase. waaw da nga ko wërale Touba yëpp. waaw damay dem damay dem ziar sama kër sang waaw ah damay dem kër suma sëriñ suma xarit suma papa Chérif Abdourahmane Fall Tilala mooy suma sëriñ ci moom laa jokk waaw su ma fa jógee dem sama kër maam. sama xarit sama sëriñ eh, sëriñ Cheikh Ndigal Fall su ma fa jógee dem Cheikh ab sëñ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim ak la dem ci kër soxna yi ñoom soxna su Mbacke sëñ sëñ mu sëñ Muntaha damay dem ci kër yëpp kër yëpp kër yëpp kër yëpp. waaw bu soobee yàlla dañ dinañ joxe ba ba ba sant daal. Ah. waaw daal. ah waaw fii nag moom. Ah. wa ñu waxu fans waxu taalibe.